ci am sam si Abdoulaye Mbacke tey ci bisu gàmm bi mu doon noonu ndigal lu suñ am sa jotoon si Cheikh Saliou Mbacke ñu koy def at yu bëree bëri tey jii nag yàlla def si Mountakha Mbacke moo fi Serigne Touba si saan ndigal ñu koy gàmm tey jii ci kër Serigne Touba gi di ñaan yàlla nag ci barkeb Serigne Touba yàlla desee ngërëmal sëriñ bi yàlla nañ Serigne bi nangu liggéey bi barkeb Serigne Saliou. waa am ëpp na fukki at yàgg na jamono Serigne Saliou ba tey fi leen ci ndigal si am sa si am ko def ci ndigal Serigne Saliou Mbacke ay at yu bëree ba ëpp na 10 ans ëpp na ko ñu koy fii def di ko fekk seen sa mbàkk bi xablaat mbàkke di ñaan yàlla mbàkk bi yàgg fi te wér di ko def nag di façon bu murte boo xam ne ñun ay ndongo lañ xamuñu mënuñu lu def ci bis bi rek seen sa d'accord xam nga Sëriñ moom bisam yëpp alxuraan la xasida bernde kon tey te lu mu am yonent bi la ko jox kon tey mooy bisu yonent bi ñu koy daa war a daa a mel ne màggal gi maa ma koy ko njort ndax Sëriñ Tuubaa lu mu gi jëm si am sama sëñ ren nag moom dafa am sax particulier particularité mooy dañ koy màggal ñun ak seex mu Mountakha Mbacké ci kër gi. ànd ko su mbokk taalibe yëpp nag ak waa Sarxe ak ñëpp ak mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yëpp bu guddee incha allah bi gaay ñi nan taxee bis bi daal ba mu ba ak Cheikh Khadim